Sonko li leen intéressé ci moom mooy bu mu nekk candidat kon nag juge bi ca Ziguinchor jël ay responsabilités am ni leen yéen ba ngeen demee euh, euh, euh, di jox Ousmane Sonko acte de radiation boobu ngeen wax ne génn ngeen ko ci fichier bi waaw léegi ñu ne léegi ñoom Ousmane Sonko dan ko daan ñaari ati kaso yoo xam ni da koo war a tëdd kaso waaw léegi ñu ne ñoom sur cette base. lan ko génne ci fichier électoral bi alors que procès booba Adji Sarr def na appel Ndeye Khady Ndiaye def na appel kon mooy procès ba jeexagul mais naam jeexagul ñu génne Ousmane Sonko ci fichier électoral bi tey juge Sabassi fay du tribunal d'instance de Ziguinchor déglu leen xam ne ay tappale lañ def parce que ba ñuy servir Ousmane Sonko acte de ba au lieu ñu dem fekk ko fa mu nekk ca tribunal ca euh, ca prison bu Sébikotane nga xam ne actuellement la ko yóbbu hôpital mooy dafa grève de la faim ba sonn ñu yóbbu ko ca hôpital ba pour mu faju waaye fa mu nekk mooy mooy mooy prison bu ko Sébikotane léegi ñu ne ñoom duñ fa dem yóbbul ko ko parce que ñu ko ko yóbbulee day wane ne ñoom jàpp nañ ko te buggu ñoo wane ne jàpp nañ ko parce que buñ xasee dem ca prison ba jébbal ko fa aw kayit day wane ne kon jàpp nañ ko te ñoom danoo jàpp ne xamuñu fu mu nekk ba mettre Bamba siise ca biir procès ba daan ne waa léegi nañ ma wax Ousmane Sonko xanaa danga koo xaaj ñaari nit kon Ousmane Sonko ban jàpp Sébikotane ak Ousmane Sonko ba ñu xam ne kenn xamul fu mu nekk. kon nag juge bi contrairement ak agent agents judiciaires de l'État wax sénégalais yi waxul nit ñi dëgg juge bi dafa déglu ñëpp nee naa leen dafa ñëw solo ba rafet mujjee ci carax ba mujjee carax ya la mu doon def mooy ni muy def ba yàq procès bi. ma méngale woon ko ñu am match boo xam ne dóor nañ la deux 0 ñu ngi ci prolongation yi mënatoo égaliser ngay xool noo yàqe match bi daan ne kee arbitré sax moom mënatu la arbitré match bi daan ne juge bi mënatu la juger juger ci biir tribunal defi tappaleem xam ne yooyu yëpp du dem mu dem taxaw wax ay waxi kasaaw kasaawam daan ne nag léegi day génne déclaration ne léegi lañ fa décider ca Ziguinchor kenn du ko appliquer kan mooy agent judiciaire de l'État moom mooy kan bay wax juge yi li nga xam moom lañ àtte kenn du ko doxal kon nag lii moo xew ca Ziguinchor juge si fay dafa déglu ñaari parti yi gis avocat Ousmane Sonko xarañ gi nu parce que Ousmane Sonko intelligence bi mu am mooy avocat yi gën a taq ci Sénégal ñoom ñoo koy défendre ñu jóg taxaw devant le président du tribunal démontrer pièce par pièce li nga xam ni moom la avocat tappalekatu nguur gi ak agent judiciaire de l'état nga xam lañ fa wax ajulum ngooñ comme ni ma ko waxee tribunal bi àtte ci dëgg wane ne Ousmane Sonko ni ñu ko génnee ci fichier électoral bi jaarul yoon léegi nag nañ ko nañu annuler l'acte de radiation ba noppi nañ ko delloo ci fichier électoral bi loolu mooy ñaari décisions yu tikkee Ziguinchor léegi lu xew bi loolu amee ñépp di xaar kañ la décision juge bi di génn juge bi génn décision avocat yi Ousmane Sonko retiré décision bi dem jox ko mandataire Ousmane Sonko Ayib dafe mu ànd ak ki nga xam ni moom mooy huissier bi nga xam moom moo waroon a la notification ñu ànd dem à la direction général des élections première njombe bu Tanor Thiendella Sidi Fall def sama mbokk ceddo boobu mu ñëw daane leen du ngeen fi dugg waa léegi moom première jour bi mu ni moom tey du recevoir léegi ñëpp ne kon xëy na tey daa am ak gàllankoor kon léegi na ayib dafe dellu bu ñu bu ñu xëyee ñu xëyaat ñëw mun leen sax tey faf nag du ngeen fi sax dugg mais Tanor Thiendella Fall moom mooy kan bay tere nit koo xam ne sénégalais comme moom la ëpp ko benn droit ci réew mi taax yan fa tabax ca DGE moomu ko tabaxuwuñ ko alalam tabaxuwuñ ko alali waajuram tabaxuñ ko alali mbokkam ñu tabax ko ci alalu Sénégal ñun Sénégal yëpp ñu yam ci parce que moom moo fay jiite te bala moo yàgg léegi mu dem retraite mu bëgg a ay sénégalais yu am droit dugg fa même bu dee la ñuy sàkku mënuñu koo am dañoo am droit dugg fa ba ca bureau ya toog jébbal la ñu war a jébbalaate surtout que ah, un boo xam ne dafa am acte bu mu lay servir nga ne ko yow doo fi dugg pour wan leen ni état bu Sénégal actuellement fi mu toll mooy nguuru président Macky Sall ci jaay doole lay def ak ce ko appelle en droit voie de fait mooy jaay doole. maa tey def lu ma neex. donc Ayib Daffé parlementaire. nekk mandataire Ousmane Sonko Ousmane Sonko jox ko lettre de désignation comme mandataire comme man ni ma ko defalee sama mandateer ak yeneen candidats yi ni ñu ko defalee seeni i mandataire ñu jox leen seen këyit bi mu demee ñu xañ ko loolu cendee la gis ni Sénégal gépp ñu ngi wane ni leen jaay Ousmane Sonko dañ koo jaay doole du yoon lan la cendee la def génne ab këyit boo xam si moom mooy erreur bi gën a mag ci li nga xam ne moom la ministre de l'intérieur depuis mu commencé 2012 ak léegi erreur bi gën a mag bi ñu def mooy lettre bi cendee a génne di wax lu tax lu tax joxul Ousmane Sonko wala le représentant de Sonko lu tax joxu ko ay fiche de parrainage moom cendee la lu mu wax cendee a wax ci kayit bi nga moom la jébbal sénégalais yi di layal li mu def ci njombe mu ne daa sukkandiku moom cendeel la ci ab lettre boo xam ni ministre de la justice moo ko yóbbante la 11 juillet bu ngeen fàttali koo usman Sonko ñu ngi ko daanoon le 2 juin léegi weer ak lu mat fukki fan tegu ca nee na ba mu amee weer ak fukki fan kese Ousmane Sonko maa leen wax ne bañ ko daanee le 2 juin Adji Sarr dani d'accordul ci leen ko àtte parce que moom xam na ne kàccam yi leer na mu bëgg a rëccatiku daan moom day porter day day day def appel donc kon def na appel. Ndeye Khady Ndiaye def appel waa léegi procès bu ñu la xësee jugé en première instance nga def appel dañ lay attewaat waa kon mooy atte ba jeexagul ci leer lu leer naa ñu atte ba jeexagul parce que comme am na ñaar ñu def appel mooy atte bi dañ koy dañ koy continuer waa léegi malgré ça un mois après Thiendella la dem génne Ousmane sonk ci fichier électoral alors que atte bi jeexagul léegi Thiendella la. leneen tegu ci mooy Ousmane Sonko ñu dem jàpp ko faf yëf ya gën jaxasoo parce que loi bi moo ne boo àttee nit te fekkewu ko boo ko xasee jàpp dañuy day anéantir le jugement de plein droit léegi sénégalais yëpp li ma benn mag wax ne ma ñëpp a nekki juriste ndaxte nguurug Macky Sall lépp jàpp tëj nañ ko mandat de dépôt placé sous mandat de dépôt euh, garde à vue ñëpp a xam lu muy signifié léegi ñëpp a xam li jëm ci mbirum jàppaatee euh, que jaay doole parce que nguuru Macky Sall loolu moo fi am léegi nag li am mooy moom Thiendella la dani Ousmane Sonko dan koo daan kaso ñaari ati kaso yoo xam si pourtant appel am na ca nee munu mënu koo xaar da koy génne ci fichier bi yemu ca ñu dissoudre partem bi ñu dissoudre partem lu ñu def yéen ñëpp gis VDN bi bi ñuy xotti photo Ousmane Sonko bi nekkoon ci VDN bi ak coxorte gu métt lañ ko xottee alors que dañu dissoudre parti bi parti bi def recours pourtant jeexagul léegi comme dafa def recours mooy xanaa lu mu bañ a bañ a bañ Ousmane Sonko ba mënu koo gis ci photo moom président Macky Sall mënoon na ne ay nitam muñ leen rek dee leen xool photo bi tey muñ xëy na recours bi Ousmane Sonko def ni dañ koo dissoudre partem xëy na sama gars yi daan ma joxaat dëgg mais xaarul sax loolu dañoo dem xotti photo ba jaay leen doole tëj siège ba dem tëj seeni antenne daan ne presse bi commencé leen wax ex-Pastef alors que kenn àtte waatagu ko yëfi jeexagul c'est la même chose ñu ñëw léegi tey daan ne cendee la ni moom euh, li tax mënta jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am mooy nee na àtte bi jeexagul <laughs> c'est extraordinaire yow fee àtte ba jeexagul génn nga ko ca waaye fii nee nga àtte bi jeexagul waaye doo ko dugalaat mais sénégalais yi lii budul maa tey. kon lan la kon nag lii am ci mbirum Ousmane sonk lu du leen dul jaay doole te li ci gën a garaaw de loolu de cende la ci lettre am xam nga lu mu ci lettre bi l'État a décidé de faire un recours maanaam état bi daa décidé def recours mooy defagul ko waa la lu ci yoonam comme état bi defagul recours mais cendale vrai waaba jiiba c'est-à-dire sunu administration administration ba jiiba ndax seen carrière lan moo ko fi jar xanaa amuli mbokk bu amee mbokk duñ ko woo ci ruq wax ko yaay kan bu dee moom am nay mbokk na ko ay mbokkam woo ci ruq ne ko cendee la nag yaa ngi ñuy teg gàcce génn nga Ousmane Sonko ci fichier bi parce que juge moo ko décidé wala juge moo ko daan bokkul sax décidé juge moo ko daan nga nga interprété ca la ko juge ba daan te procès ba jeexul nga génn ko tey ab juge delloo ko maintenant ci biir fichier bi nga ne non non procès bi te pourtant bu njëkk ba nga koy génne procès ba jeexul woon. waaw kon nag sénégalais yi yéen la ñuy waxal réew mi jaay doole bi fi am dafa ëpp dañoo bëgg ñu delloo Ousmane sonk ci fichier électoral bi parce que loolu mooy yoon cendee la moomul réew mi ministre de la justice Sidiki Kaba moomul réew mi te ci la ñuy profité pour wax les leaders de l'opposition ñoom ñëpp nañ ñëw bokk ci lakos avec sincérité pourquoi parce que ku yaakaar ni bu ñu éliminer Ousmane Sonko ci jaay doole yow dangay ngay mucc wala da ngay rëcc da nax sa bopp Ousmane Sonko lii Macky Sall di jëm ci moom li tubaab naan qui peut le plus peut le moins bu leader yi seetaanee ba Ousmane Sonko ñu jaay ko doole ñëpp xam ni dara mënu koo tee nekk candidat parce que ñetti dossiers yi ñu koy toppee yëpp damay dégg sénégalais di ci wax mais ñun dañuy waxtaan ak homme de droit yi déglu nañ les spécialistes démb yéen ñëpp gis ngeen. ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam ñi ñu tuddee ay agrégé en droit ñu génn seen texte wax ni Ousmane Sonko fichier mi bu ñu ko ko joxul mooy état de droit amatul Sénégal jëratul ñuy àtte kenn ci prix ci ci ci ci tribunaux yi. ñëpp gis nañ maître Doudou Ndoye nga xam ne ñëpp xam nañ ni moom xarañteem Sénégal kenn weranteetu ko surtout que matière bi ñuy bi ñuy discuté nii moom loolu la jàng ca loolu la spécialisé wu lu mu wax. nee na Ousmane Sonko ñetti dossiers yi ñu koy toppee yëpp amu ci benn bu ko ci mën a tee nekk boo jëlee bu mambay ñaa bi li loi bi wax dani bu ñu la daanee lu ëpp juróom benn weeri kaso kon Ousmane Sonko juróom benn weeri kaso lañ ko daan tegul benn bis kon kenn mënu koo tee nekk candidat ci dossier mambay ñaa bi des fois mu dégg ay sénégalais naan est-ce que du ñu génnewaat dossier mambay ñaa bu ñu ko génnee luñ ca man dossier mambay ñaa ba mënuñu ko ca daan par cour de cassation du àttewaat lam mooy recours nga def dañuy xool ndax yoon ak procédure yaag yooyu respecté nañ ko léegi nag li ñu man mooy ne respecté nañ ko kon dañuy confirmer la la décision du tribunal bu ñu ko confirmer mooy dossier boobu kenn mënu ko cee tee nekk candidat parce que juróom-benni weeri kaso yum dul tëdd lañ ko daan parce que yoon li mu wax mooy juróom-benni weeri kaso yoo dul tëdd wala au moins ñetti weeri kaso yoo tëdd oui il faut mu nekk juróom-benni weer yu teg il lu ëpp juróom-benn weer yoo xam doo ko tëdd wala au moins lu mat ñetti weer yoo xam tëdd nga ko kon nag Ousmane Sonko lañ ko daan ci dossier Mame Mbaye Niang bi diffamation de kenn munu ko ceetee nag candidat parce que ponkal yi am xam-xam ci mbirum droit yëpp loolu la ñu wax. beneen bi mooy bu Adji saar bi nga xam nee naa leen ñaari at yan ko ca daanoon moom jàpp nañ ko faf comme jàpp nañ ko mooy dañuy attewaat léegi kon procès boobu mënatuñ ko fii attewaat. ba ba ba mu yegg ca cappaandaw ba li ñuy tuddee en France en français l' de la chose jugée mënatu xajatu fi kon boobu dossier tam tuñ ko ci tee nekk bu mujj bi nag moo gën a neexate mooy bi naan daa sàcc téléphone koo xam ne yow say militant ak say sympathisant soo nee leen vingt quatre heures dajaleel leen ma trois cent millions ñu dajaleel la ko waay waay waaye looy doy ab téléphone ana ab téléphone yow loo koy soxlaa ba koy sàcc parce que kuy sàcc mooy loo xam da nga koy jëfandikoo Ousmane Sonko lu muy dee sàcc téléphone kenn garde corps Ousmane Sonko sax soxlawul téléphone téléphone jàmbur ndax su ko bëggee ay militant Ousmane Sonko jëndal leen kon nag nañ bàyyi seen caaxaan yi Ousmane Sonko est candidat loolu la Lacoste wax mooy Ousmane Sonko Macky Sall bu bëggee tere Ousmane Sonko mu nekk candidat mooy élection du am parce que moomuñ ñu yi nag lañuy waxal ginnaaw bi ñu waxee opposition bi leen jël leen seen responsabilité na opposition bi yëpp taxaw pour yéene Ousmane Sonko jàmm c'est important parce que gis nga booy xëccoog nit da nga koy ñeme. opposition bi seen intérêt mi ngi ci Ousmane Sonko nekk candidat parce que su leen Macky Sall su suñ seetaanee Macky Sall jaay doole mooy bu leen bu jaayee doole Macky Sall euh, bu jaayee doole Ousmane Sonko qui peut le plus peut le moins ñoom seen kaw la jëm. kon ñoom dañoo am intérêt ñëw taxaw ci dëgg pour que ñu am des élections inclusives mooy élections yoo xam ñëpp ay bokk kon Ousmane Sonko dafa am war a bokk. moom Lamine Diante bu bëggee bokk bokk keneen ku bëgg a bokk bokk capitaine Touré bu bëggee bokk bokk keneen ku bëgg a bokk bokk suñu doyen Habib Sy sax bu bëggee bokk bokk. loolu mooy démocratie kon nag bu ñu jaayee doole Ousmane Sonko na opposition bi yëpp taxaw te bañ a nekk seen roq di ñaan ñu éliminer ko loolu ku ko yaakaar dafa ne militant yi Ousmane Sonko bu ñu éliminer Ousmane Sonko dañ lay votel boobu da ngaa xamul li xew kon nag. damay lancer appel à l'opposition ñu taxaw ci dëgg Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu retirer ay fiches beneen bi mooy sénégalais yi Ousmane Sonko li ko dal yépp yéen a tax Ousmane Sonko bu doon mbiri boppam kese la kon lii ko dal du ko dal tey parce que ay moroomam fa muy liggéeyee ñu ca ëpp ca ñoom am nañ ay milliards parce que man taxaw naa ni le candidat bi nga xam ni moom lañ samp ñoom waa système bi te ragal Ousmane Sonko c'est un candidat milliardaire waaye milliardaire am lu mu ko jariñ fi mu jaar dans le nord fan yëpp ñu ngi koy yuuxu fu mu romb ñu sonkoriser ko mënta gañe ab centre de vote bay gañe élection présidentielle ñoom xam nañ ko léegi moo tax ku yëngutu ñun la doo ko fi defee gis ngeen ni tey même ñun conférence de presse bii dem nañ ca fañ ko waroon a defee defi pexe ba ni leen bu leen permettre ñoon ñu ñëw fi tey à la dernière minute pour bëgg koo yàq loolu la fi président Macky Sall nekke dictature la nekke Sénégal maanaam bu kenn wax bu kenn ŋaang na jaay doole ñëpp bu ko defee ñëpp noppi mu def li mu bëgg def maanaam def passage en force imposer Sénégalais yi président boobu nekkul ci seen xol bugguñu ko kon nag ci gàttal li ñu leen bëgg a wax mooy sénégalais yi ñoo war a am taxawaay bu sénégalais yi taxawee tem ni ñun ki nu bëgg def ko ci suñu xol mu wax ñu lu ñu doy ban bëgg koo dénk sunum réew day nekk candidat bu ko sénégalais yi taxawee jëmmal ko wax ko taxawee ko kenn mënu koo tee nekk candidat kon Ousmane Sonko waxoon na ko ne man lii tax ma nekk candidat ak ma man bañ koo nekk ci sénégalais yi la dépendre kon sénégalais yi ñoo war a jël seen responsabilité parce que la souveraineté appartient au peuple kon li am mooy candidat la boo xam ni sondage yi ñu def yépp wane na ne Ousmane Sonko bu demee élection il gagne les élections dès le premier tour hypothèse yi gën a bon ci sondage mooy Ousmane Sonko day am 60 pour cent moo gën a bon ci Ousmane 60 pour cent sondage yépp nee nañ même waa ji yi nga xam ne daa bëggoon a def troisième a te mujj la dem bu demoon Ousmane Sonko da koy gagné. kim fi teg nag nga xam ne moom ab quartier sax mënu koo gagné. mënu koo gagné ca parcelle Assainies kan moo ko fa gagné Jamil Sané Jamil Sané kenn xamu ko ña ña voté Parcelles Assainies Ousmane Sonko lañ voté ña voté Patte ñu ca bari ci ñoom xamuñu woon may mun a jéey Ousmane Sonko lañ voté ña ca Golf xamuñu Khadija Mahécor Ousmane Sonko lañ voté te comme ni ma koy waxee. bu ñu tey jii Ousmane Sonko su jëloon responsabilité à l'époque bañ a yërëmaate jël ku ko neex teg ko à la mairie de dakaar ku Ousmane Sonko teg Dakar waayu votel parce que Ousmane Sonko et majoritaire à Dakar moo majoritaire dans toutes les régions seen candidat bi laaj na question kenn tontoo guma Ba ban quartier la mën a gañ Sénégal nan ma ko wax nan ma wax rek ban quartier la mën a gañe man kay ba léegi maa ngi laaj question bi ban quartier la Amadou Ba mën a gañe au Sénégal boo xam ne sénégalais dañuy rang di votel amadu Ba kon nag liy dëgg mooy munoo fee nekk amoo candidat bu mën a gagné Ousmane Sonko nga ni par force damay éliminer Ousmane Sonko pour faire plaisir aux Occidentaux pour faire plaisir à la France pour faire plaisir à des lobbies yoo xam si ñoom amadu Ba moo leen gënal parce que Amadou Ba su ñëwee comme ni mu ko waxee continuité lay def mooy li Macky Sall di def nii lay continuer def mooy lan mooy xale yi dañuy continuer di jël géej gi di dee mooy xale yi. dañuy continuer di jaar Nicaragua pour dugg États-Unis ci jafe-jafe mooy xale yi bu ñu jàngee ba pare duñ am liggéey mooy xale yi bu ñu feebaree ñoom ak seen i waajur duñ am fu ñu fajoo li ngeen gis nag barki dem mooy jigéen ñi am si ñoom lañ bundu xataal fii ci camp jaay leen doole ba ñaar ci ñoom ñu yóbbu leen à l'hôpital parce que dañ leen a gaañ kooku wone na nag Ousmane euh, Ousmane Sonko nag quand même Macky ragal na ko aujourd'hui nag li mu bëgg mooy toroxal sénégalais yi parce que soo bëggee toroxal sénégalais mooy toroxalal jigéen jigéen kenn du ko toroxal.